ci xolu benn Bokk Yaakaar la ñu nekkoon parce que dañ fa nekkoon benn acteur di alerter lii yëpp mu mel dañ ko xemem toon muy ñëw euh, gannaaw bi nga xam ne nag président bi def na wax waxeet ñëw lug bi ak ni mu ko habillé euh, jëf ji ñaaw na jëf ji ñaaw na dese war na sénégalais yi loolu nag ñun li ñu nekk di def yemuñu rek ci naxarlu ko mais tey jii ñoo ngi nekk di def ay consultation ay waxtaan yi nga xam ne ñoo ngi koy engagé ak les mouvements citoyens daje nañoo ak Dakar ay mouvements citoyens yu bëri yi nga xam ni ay jeunes lañu ñi nga xam ne ay partis politiques lañu ñi nga xam ni ils sont dans la société civile pour que tey force yooyu yëpp mën a daje nga xam ne daañu boole seen doole àndandoo harmoniser seen position d'ailleurs même avec certains partis comme le PASTEF ñoo ngi waxtaan ay waxtaan yu sore MRDS bu Imam Mbaye Niang ñoo ngi waxtaan également ay waxtaan yu sore pour xool ban taxawaay ak le également ban taxawaay lu ñu mën a am pour wañ loxo président nga xam ni référendum bi nga xam ne amul pratiquement benn mux amul benn njariñ pour le peuple sénégalais duñ ci yàqat ay 3 milliards euh, comme ni ñu ko yàqee woon ci commission réforme sur les institutions. ci waxtaan boobu ndax yéen a ngi ci boole jenn ñi demee parti socialiste nga xam ne xaajaloo nañu. waaw man de damay rafet lu di encourager ku mel ne xalifa sal ku mel na ay Tall sal parce que tamit parti dafa war a nekk au service du peuple mais parti bu fekkee ni dafa yonjax daal di tagatembe am fu mu féetee topp benn nit loolu taxul nit di def politique moo tax di leen encourager bu baax. Euh, loolu tamit bu fekkee ni wër na mën a permettre tey jii euh, action yooyu yëpp daje ci benn ndab bu ko defee voix bi nga xamante ni moom la ñuy porter muy voix wu peuple bi dana gën a taxaw dana gën a am njëriñ et puis daañu ko gën a mën a dégg.